jëfe ndigalam moytu ay tereem bur bi moom baax na jaamu ko war yaram la tax na mu yónni ahmada xoolal fu mu jaaraak yow bam ngay bu ndaw nekk ci biir bu ndaw mu'ala bangarau natal talambi gertek dugub ji dundal jabot ji santal barombi faik barombi moy jannay firdausi gawle dausi dundu gagije Allah yalla buur bi kenn la macha allah. is doomi jàmbur تخبادو مجاي لو تخبادو مجاي جاينا جاي بمل نلال ايكو مي والو بما من كف دير ديفا ام جامبر بل ليسان دامي جاي دم جامبر بل دي جاي سجاي دامي جاي من ما دي جيرم man maa di jirim man maa di jirim ma di sol yére yu lan mooy sama bakka lu du ñàkk yaay ak baay doomu jàmbur lu tax baaduma jooy lu tax baaduma jooy lu tax baaduma jooy jooy ba mel ni lool ay ku may wallu ba ma mën a kaf diire di foo doomi ne waaye bu góor dafa dama juddu yàggum na mees adduna lëndëm kiris li may dundu tiis dami jàmbur bul di jooy soo jooy fu ma dem ma fay minda fu ma dem ma fay minda fu ma dem ma fay min naa may fot bala toogu añ banneex bu ne lañu may xañ luñ ma def loo sañu ma bañ doomi jàmburu bul di jooy soo jooyee daa may jooy doomi jàmburu bul di jooy soo jooyee daa may jooy doomu jàmburu bul di jooy soo jooyee damay jooy doomu jàmbur bul di jooy jara wayal boo leen xooli xam ni ñu jara way xale yi ñoo jara way alquran aywa baqara banas yi ci nekk yéen daal yéenay jàmbaar mokkal alquran aywa mokkal alquran aywa yi ci nekk yéen daal yéenay mokkal alquran baqara banas coono yi ci nekk yéen yéen jàmbaar wax ko sama yaay aywa wax ko sama baay suñu yaay booy suñu dara neex na wax ko yaay waxoo sama baay waxoo suñu baay booy suñu dara neex na. waxoo sama yaay. aywa waxoo sama baay. aywa waxoo suñu yaay booy suñu dara neex na. wokko sama baay booy suñu dara neex na wokko sama yaay wokko sama baay wokko booy suñu dara neex na may ma tuuti may ma tuuti xoola eh yéen ñëpp laa bëggoo xale yi ñoo jara soone loolu dama koo soxla dégg ngeen ñu dem xale yi ñoo jara wayal dégguma leen de xanaa añu leen ba suur xale yi ñoo jara wayal boo leen xam ne ñoo jara wayal man baqara banas tonay aywa aywa aywa ci nekk yéen daal yéen ay jàmbaar wa ko aywa wa ko sama wax suñu yaay bo suñu dara neex na wax ko sama yaay aywa wax ko aywa wax ko suñu yaay suñu dara neex na jara wayal bale xoole xam ne ñu jara wayal hey bale xoole xam ne ñu jara wayal makkal alquran makkal alquran coono yi ci nekk yéen daal yéen ay jàmbaar aywa aywa aywa coono yi ci nekk yéen daal yéen ay jàmbaar wax ko sama yaay wax ko sama baay wax ko suñu yaay booy suñu dara neex na wax ko sama yaay aywa wax ko sama baay aywa ñun ñu ñëw yaay booy ñun ñu dara neex na

ndeysaan yaa Cheikh ana soppee sëñ Hady Niass yi ne kë seen loxo ca kaw

jimaway jimaway nit ku baax ila tay yàlla la bur bi fay yaa sax haade ñaar war naa ma tay jimaway nit ku baax ila tay yàlla la bur bi fay yaa sax haade ñaar bis bi Oustaz Seck kon dama bëgg bu ma nekk waral lii ñu ne Sidi Cissé bu ma ne waat ku waral lii ñu jox mu Oustaz Seck loolu rek laa bëgg tànt bi xumb na lool te ñoom ñaar ñoo waral lii lépp kon nañ leen wéyal sargal leen tadagal leen ndax ñoo jàngal seen doom bañ ñëw fii di tëri tërin bu rafet macha allah yéen ñëpp ngeen teg ci seen bën kon ku waral li Sidi Cissé sàmmi micro yi ma déglu tànt bi ba xam yéen yéenay wax wala waa tante bi yéenay wax ku waral lii mu toll ni élèves yi ñooy wax yéen waa tànt bi dégg guma leen de ku waral lii eh, yéen noppi leen bu leen wax baa mi xool ñii nii Seck de bëgg dégg ci kaw ma waral lii eh, Allah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha ma tax mu daaru amal bu ya mutaro am qalbu yaato gimmo ka yaaro dablu jaado gimmo ka maandu dawal kullama Allah Allah la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah Ale, ale. kon ngeen déglu sama naataango ku nekk gis na xale yi seen mbubu yi nuñ taaroo te kenn ku nekk gis ni xale yére xale yi luñ sol jugal taxaw yéen ñëpp gis ngeen Oustaz Moussa daaw ñu nag ñoom ñoo bokkoon fii nii toog bokk benn jotaay tey nekk fi jiitu xale yi defaral ko t-shirt di ko rendre hommage di ko fàttaliku moo lay waral ne kon fàttewuñ sëñ Moussa suñ sëriñ Oustaz Alxaaji mu ndaw nekk borom xam-xam nekk sa markas ba fële Alxaaji Ahmadou Niass ba ñëwee su jotaay bi mu toog taalifal ko benn wëy sama naataango yi ñoo yor wëy bi danañ ko wëy ngeen dégg incha allah. kon ma leni ñaan yeen ñep ngeen teewlu way bi insha allah ñu def ben rendre hommage Serigne Moussa insha allah. Mm -hmm. hmm, hmm, hmm ما أقدر الرحمن تيس الوادي دمنا موسى بيدمناني وين رحمن يا رحمن يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ في حياتي قرآن دمنا دمنا مسامي دمنا صوفي دمنا يوم كي جال القرآن قلبي قرب Nine.